الله رب بسم الله رب شقيا وإن بغلام اسمه يحيى toujours li ñuy faral di wax ni soxna yi bu nu defaroo rek askan bi defaru soxna yi bu nu defaroo njaboot gi defaru soxla yi bu nu defaroo réew mi defaru kon initiative bi ñu jël ba tax ñu duppee def conférence pour yeete loolu dafa nekk lu am solo may nuyu professeur di la ziar bu baax

ndax ku ne xam na son excellence Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop saytu bi muy saytu jëmale ko ci biir diine ji pas-pas bi mu am ci biir diine engagement bi mu am ci ay di ci diine rawatina fii ci Thiès kon les euh, soxna yi ki ko dippee def ko marraine bi muy jigéen soxna comme yéen ñëpp xam na nu taxawaayam fii ñu ngi nuyu ki nga xamee ne aussi mooy CC ndax soxna maram gase ci boppam taxawaay bi nga xam ni taxawee na ko fii ci lycée bi ak collègue yi fi nekk yëpp ndax lu mënul ñàkk faaw mu am décidé bu mu woon sax pour jël parole ndax tey dañu ñëw pour déglu pour pour taataan bu nu demee mën ko yóbbu kon yàlla fi yàlla defal jàmm defal ko mbooloo bi jullit yóbbante Adja Ndeye Tické moo nekkoon noonu vraiment lu mënul ñàkk nag faaw mu am yàlla nu yàlla jàppale ñu teewee ko ay déwén déwén yu bari. xam ni nun ñii de ci la ñu bokk ma di leen di nuyu ci seen tur ci seen cër ci seen i daraja di leen di nuyoo du ci nuyoobu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dinaa jiital ci nuyoo bi sunu kilifa ndax ci ñaar moo am aada ak xaqiqa su dee dañuy dem ci wàllu aada papa Habib bi damay daal di doon nijaayam doon magam sëriñ Moustapha ba nga xam ne ma nga ci bawal te yabal ko du ma doon sax ma doon damay doon papa waaye bu ñu delluwee ci xam moom sëriñ Moustapha mooy sama kilifa kon nuyoo bi ci moom laa koy njëkk papa Habib mi nga xam ne moom la yabal ba teg ko ci loxoom mu jottali ko. moom moomu nag moom moom nuyoo boobu séddoo ak kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay ñi ma ciy njëkki mooy kilifa yi toog ci sama te xalifa ba nekk ca Canaba yore li nga xam ne moom la sunu maam Ahmad Ndak yore woon ñu di ko joxalante loxo ci kaw loxo ba mu yegg si ci loxo xalifa bi yàlla bu ko yàlla sàmmal mu yokk ko ba mu féete kaw fa mu ko yéene ñoom ñi nga xam ne ñoom la yabal ba nuyoo leen nuyu bu nu yëkkati ba mu kawe ñu sellal ko ba mu sell ñu teg ko ci loxo ñu sell yooyu le di ñaan borom bi azza wa jal yàlla ko fi yàggal yàlla ko wéral yàlla yaatal suturaat ndax loolu la ñuy ñaanal bépp kilifa diine jiital ci suñu xalifa sëriñ mohamadul abou bakrin si mohamadul Mansour di ko ñaanal yàlla yokk fanam yokk wéram yokk sutura mottali ay projet bi ci jiitu di jumay Cheikh Hadji malik si bi ñu bokk ko julli ci ginnaaw sëriñ ma dikkee mu tudd lépp ma ji ma jooju ma jooju bal ma ak <laughs> maa ngi lay jox xam naa turu kenn ci sa mbokk yi sëriñ <laughs> ma dikkee seek waaw sëriñ ma jooju nuyoo bi tegal ñu ko ci loxo xalifa bi ak njaboot yëpp su ngeen toogee jotaay bu ngeen toog li ngeen fa dajeel yam ak dara jëm

mu leen di yow tamit ak asatida yi ak aima yi yëpp ndaxte xayrukum man taallama alquraan la yàlla wax te yéen a ci nekk. sal sujet bi ngeen ma jox su ma ci dawalee tuuti ba xam it moo koy yeggale incha allah dañuy wax islam al islam wal mara ak wa tarbiyatu nasha al shabab yoxasri raqmiya jigéen diine islam jigéen ak yar njaboot ci jamono ji nga xamante nii la ñu tuddee jamono yu ndugay ñetti baat la l'islam jigéen yar luy l'islam ci gàttal danañu jéem a melal l'islam ci cëslaayu ci ay kenoom ci euh, li koy melal muy étiquetam jéem ko firi ci pas-pasam l'islam diine la yoo xam ne dañ koy boole ci

ci mu fu muy mujje xam ngeen fu mu mujje daf ni ki nga xamante nit ñi yaayam man ma ëf sama ruux ci butiitam ma def ko moom yaay ji ak doom jëf ñu nekk kawteef bi àdduna bi muy Sayyidatuna Maryam daf ko boole ci silsila bi daf suratul anbiya ba pare nag mu soog a jeexale wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun kon jigéen su fekkee yàlla dafa jël la chaîne de la révélation di tudd ay góor di tudd ay góor di tudd ay góor ba ci mujj gi mu boole ci benn jigéen jigéen jooju la di Sayyidatuna Mariam parce que Sayyidatuna Mariam dafa am benn niveau boo xamante ni moo ko boole ci biir yonent yi pas ci wàllu révélation mais ci wàllu martaba pourquoi parce que boo ñëwee ci échelle nit yàlla ak mayu yàlla bu yonent yi nekkee ca kaw bu nu jeexee échelon bi ci tegu juste suis un échelon Je suis un échelon wu les justes échelon Moi intermédiaire diggante qui ak la suñu nouveau intégré kii di Tout ko monde ci qui chaîne parce que en place dans le monde qui voit pas tudd ni du moom moo tax mu am di place mu def ko mu nekk kawtéef ci biir révélation bi moom ak doom parce que doom dafa juddu te amul baay doom ja dañu ko rey te deewul maanaam ci wax yi rey nañ ko te reyuñu ko doom ja dañu ni dugal nañu ko ci biir bàmmeel fekk ba nga ca kaw ak yeneen kawtéef yi mu def yëpp kon nag yéen jigéen ñi ci wàllu spiritualité am ngeen ci place boo xam ne kenn dootu ko naatable dinañ ci dellu si léegi donc l'islam mooy diine jooju nga xam ne dafa am benn chaîne bu mu jaar mais bi mu jaaree ci chaîne boobu nag dafa am ay fondement lan mooy fondement wu l'islam ñaar mooy alquran ci weeru alquran la ñu nekk ak sunna yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñaar yii suñu ko tuddee diine diggee nañ ko ko mais taxawul ci kër diine parce que diine édifice la boo xam ne l'islam édifice la boo xam ne fondement yi ñaar yi rek la alquranul karim ak sunnatul habibil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu le ñi ngi ci weeram weeru alquran la ñu nekk bu weeru koor mësana ñëw alhabibul mustafa sallallahu alayhi wa sallam daf daan tari alquran ci mais encore koor bu mujj wi ko ci deux fois xam naa loolu moom waral waa Sénégal ak ñi Sénégal bu koor ñëwee ñu jëlaat alquran di réviser di relire ni nous avons woon relire pour le relier au vécu de ce monde-là parce que démb la ñu waxoon alquran mu war a àtte tey mbokk lu ñu waxoon démb mu war a àtte tey bu ñu ko jàngul jàngiinu tey du ko mën a jokkale ak xew-xewu tey du ñu ko mën a doxalee ñi tey laaj moo tax mag ñi di firi alquran weeru koor pour mën a euh, kàddu yi ak maanaa yi dëppoo ak li nga xam ne moom la ñuy bind te ñu génn lii alxabib al Mustafa jàngale ñaar yooyu lu ñu wax ci diine mu tudde ko diine waaye mën nañu jàppee ni du diine moo tax képp kenn ci ñun war na di foor ngir di mën a dégg alxuraan te di ko jëfe maa ngi gërëm sama waajur bis nekk dama koy wax ni ko kenn mënul fay sa waajur mais man mënuma laa fay parce que jàngal jangal na ma dugal na ma école jangal ma alquran jangal ma diine sama yaay di nekk ci sama gannaaw baay fu ma yegg nag moom la parce que moom moo ma doon motivé motivation bi jëm ci jigéen ji la sëñ Pape Malick Sy radiallahu taala anhu daf ma wax bis ci woyofam ak ci mbaaxam ñëw seet si ma sama bureau ñaanal ma ñuy dem ma woo personnel bi pour mu ñaanal leen bi ma ne ko sëriñ bi jigéen ñii ñoo ma ëppal njariñ ci liggéey su ma xëyee fi laa leen di fekk te du wàcc te wàccu ma te ay borom kër lañ mu ne ma gis nga dama wax ba tàyyi ni sunu kër góor ñi jàmbaar lañu parce que sos kër yi ñoo tabax jàkka yi ñoo ubbi daara yi ñoo jàngale alquran mu ne wante leer gi jigéen ñëpp indi parce que loolu aussi lu important leer gi jigéen ñoo koy indi tey seetlu leen ko rek ñi ñuy tudd fii daanaa def benn jeu ak samay étudiant y compris des étudiants sénégalais ma ni leen kan mooy yaayu kan mooy papa yi alaaji Maalik am na sax gis ma laaj ko benn élève ñu ko Alpha Mayoro <laughs> du ma ne kan mooy yaayam ñëpp tudd ko ma ni kan mooy papa yi Cheikhul Khadim ñu bu ma ne kan mooy yaayu Cheikhul Khadim ñëpp tudd ko kon loolu Pape Malick si Serigne Pape Malick si waxoon ni leer jigéen ñoo koy indi lu dul tuuti ñu bàyyi ba wax ni kon ñaari cëslaay yooyu nag bu weesoo lislaam dafa am ay kenn kenn bu njëkk gi pas-pas la al aqida al iman gëm yàlla gëm yàlla ah gëmu gëmu doon man de wax dëgg sama borom li may wax ni sax xëy na waruma ko woon wax mais ma wax ko rek te jéggulu borom bi man de bis toog naa sama kër dugg sama salle de bain sang taxaw sama biir néeg seede seede bu bees ni gëm naa yàlla parce que gëm bu njëkk gëm bu doon rek la woon toog naa ba jég ni kii moo fi nekk moo nu sàkk moo ñuy defar moo ñuy fekk moo ñuy protéger moo ñu dig aljanna bokkul ak ngëm gi ko sama baay joxe woon ma donn ko di julli ci ginnaaw bii maa ko sama bopp te pas-pas boobule daf war ku nekk ci ñun mu fet yëpp laa mbokk yi ma di wax ni ko balaa may dee rek ngeen nit defe ne moom moom boppam ci situation yi ñu nekk liberté d'expression li opinion liberté yooyu yëpp ñu defe ne ñoom moom suñu bopp ma ni ko léegi dama lay poser benn question est-ce que yëg nga ni yaa ngi xeex personne personne su taxaw di

ay wàllu yu yàlla la mayu yàlla du jeex yàlla may na leen lu ko soob waaye yàlla yónni na yónent bi nii laa bëgg ñu toppee ko ci noonu suñu borom bëgg ñu toppee ko ni maa ngi dégg benn bés sëriñ moom suuf si borom dara ji yàlla yàlla yokk leeram fu mu tëdd ñu tër la ci ñaari anam ak Cheikh Hadji Malick si duñu ko askanale ñoo ko moom te it fii la ñu jànge ba am fi suñu baccalauréat fi jógee dem Ndakaaru fii min nañu ko min nañu couloir yi min nañu classe yi min nañu taatu nit min nañu terrain fi ñu miirul woon moo doon bureau censeur ak bureau proviseur parce que bâtiment bee ñun fi ñu fiy jàngee élève du fa dugg lu dul buñ ko te buñ ko convoqué rek lu garaaw la def ñun buñ fiy

bokk na ci njëkk a fii ay récitalu alquran ba tey tabarakallahu gis nañu Sénégal nu mu demee di nuyu suñu frère di ak ustaz professeur Djibril Cissé parce que ñu nag moom ñoo bokkandoo jàng université département arabe première année bi ñuy génn ak suñu maîtrise ñuy indi ko ah, li ma xam ci moom de xaw ma léegi ndegam Thiès soppi na ko parce que Cees dañu bari histoire mais moom bariwul woon histoire bon Cees dañu bari histoire bu ne ñoo xam naa xeeru raay yi ñoo tax ku ci nekk say poos ay xeer ak mooy président Baaba Deme bi ñu xamoon ci moom daal jàng ak courtoisie ak sport basket waaw loolu